la ñuy xaare itam ci ki nga xam ne moom moo leen jël ngir ñu liggéey foofee mu daal di leen jox cër ICS mi leen jël tontu na ci intercontinental de service bi nga xam ne moo nekk fii ci ndakaaru ci benn bataaxal boo xam ne jot nañ ci mu ngi wax ne dem ci wàllu grève dafa am ay anam yoo xam ne moom lañ koy defee muy anam yoo xam ne dafa war a wàccoog yoon ñu gis ne ñaari fan yi nga xam ne moom lañ leen appal dafa néew lool su fekkee nag ñoom liggéeykat yi dañoo dem ca grève dafay nekk grève goo xam ne teguwul benn yoon te ku ca dem wala nga xupp ci nit ñi ba ñu dem ca mën nañ laa dàq ci boobule bërëbu liggéeyukaay te la tàggu duñ la fay benn droit looloo tax kon di woo liggéeykat yi marin yu Sénégal yi ñu delluwaat ci liggéey bi su seen àpp jotee maanaam bu ñu jógee ci quarantaine bi te ñu bañ ci indi nag quarantaine bi te ñu bañ ci indi nag benn jafe-jafe ci xibaar yu mujj Abdou Diouf junior euh, ñoom marin yooyu ndaw woolu nañ leen ci kanam tuuti bu 9h ci agence nationale aviation maritime njiit la Achille waax Guèye la mu bëgg euh, ba woolu leen yooyu représentant yu marin yi mooy fexe xam yëf yaak euh, lu mu wund ak lu ko lal lan mooy jafe-jafe bi dëgg seen digg ñoom yooyu marin ak ICS ngir kon du ñàkk wut ca saafara saafara it te ñàkk ci sekke nag njawe ni ndax di diiram ñetti fan yu boulanger yi ne dañuy daal di amal ab grève mburu duñu ko defar loolu xam naa ni duñu ko mën a dégg ñoom ñooñu nag di mbootaayu boulanger yi lanu bëgg mooy état Sénégal taxawu leen ndax ginnaaw fariñ beeg yokkute ñoom it danoo bëggoon mburu mi yokk lu ko mooy dund ci génn ci njaay mi lu ci mën di am nañ ci àndaat ak yéen ci yeneen jotaay xibaar ak grève boobeeg nu mu mujjee ak du ñàkk ndax sekkee nag ngewee ni feeñal nañu ñenn ci lakkati mburu yu mujjee xëy ci àllarba wala talaata tey jile dañuy wutali Fatick Fatick ak soxna Aminata Goudia bi waxtaane l'école yu fa bari amul wanag yoo xamante ni yu baax a inspection d'académie bu Fatick euh, na ndorteelu saafara ci kër gi di société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine juróom-ñetti million yu tegal genn wàll la ñu génne ngir daal di fa euh, baaxee jumtukaay wa nag ab l'école Aminata Goudiaby. bëri na ci école yu nekkee ci biir inspection de l' éducation et de la formation bu Fatick yoo xam ne soo fa demee doo fa fekk ay gaanuwaay wala léeg-léeg yaa ngi fay fekk du baax. directeur général bu société d' aménagement foncier et de rénovation urbaine SAFRU ne dafa jóg rek ngir xeex lu ni mel tabax ay gaanuwaay yu mucc ayib ci école élémentaire Fayda li nekkee ci biir commune bu Fatick Maysa Maykor Diouf. nu bloc sanitaire boo xamante ne daanaka mot na si juróom-benn toilette ak juróom-benn jàppukaay yu ànd ne seen doxin yombul fa la ñuy jaar boo gisee ñu def ko c'est parce que tout simplement ki ñu jiite muy borom réew mi moom moo ko oote woon mu ne doomu Sénégal fu waay munti toll na dellu sa école nga participer ci développement école ya inspecteur de l'éducation de la formation bu Fatick nag di rafetlu mbir mu ni mel ndaxte nee na xale yi ak enseignants yi dañoo soxla di nekk ci condition yu mucc ayib ngir rek def seen njàng ak njàngale ci ni mu waree Malal Sané moom mooy IEF bu Fatick. tant que lieu de vie et d'épanouissement de l'enfant, sans créer les conditions d'hygiène, gage de bonnes habitudes et de santé. ganwaay yi nga xam ne nag moom la ñu tabax ci école élémentaire Faydaly bu commune bu Fatick inauguré nañ ko ci bu Fatick di Maktar Ba. ku nekk nga jël huit millions cinq sa soxla. mu jàpp solo. li am solo mooy soxla askan wi. li mu def ñun la ko defal. parce que c'est une compétence transférée. bu weesoo ganwaay yi nga xam ne nag moom la directeur général bu société d'aménagement foncier de rénovation urbaine tabax boo boole na ci jënd ay livres yu bëri jébbal ko inspection de l'éducation et de la formation de Fatick ngir rek ñu mën koo teg ci loxo école yi nekkee ci biir IEF bi Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM Sport. maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la Jassane. ñu tàmbali ak football juróomeel bi journée éliminatoire coupe du monde deux mille vingt deux ca Qatar Sénégal ña nga ca Lomé ñu bari ca ñoom démb ca hôtel ba ne am na fa benn euh, néeg wu leen fa tijjil def ci jumtukaay ngir ñu tàggatu daal di euh, tàngal seen yaram ñenn ñi euh, fudd seen i cër ñenn ñi dàmpalu seen i ay yaram ngir ñu mën a féex lataakoon ñuy dem tey jii ci benn bërëb bu ñu leen fa abal ngir ñu mën a tàggatu jongante bi nag alxamis ko jàpp seen digganteeg waa Togo loola nag ba ñu ca génnee Famara Diédhiou nekkoon ku mujj a dugal ñetti ay bit ba ba noo football fu si jongante bu mujj bi. wax na nag ni ñoom daal donte qualifié nañ ba noppi waaye daal euh, gagné rek mooy li leen tax a jóg mi ngi waxee kàddu yi ci euh, service mi banqaas bi ñu dénk wàllu jokko ba ca fédération sénégalaise bu wàllu football bi. sérieusement nag euh, ça s'est bien ñëw nañ ci jàmm voyagé nañ ci jàmm condition accueillir nañu aussi comme il le fo donc euh, voilà ñu ngi ñu ñu ngi egg si tey def nañ benn séance salle parce que bon ñu ko ñëpp ñëwuñu voilà te mënuñu ñëwoon toog noonu donc euh, liggéey nañ bu baax salle et puis euh, voilà ñu ngi ñu ngi xaar si bi ñëw ce soir pour suba incha allah ñu commencé sur le c'est pas que ne dañoo qualifié rek que dañu war a bàyyi suñu loxo déedéet. li ñu gën a soxal mooy mooy victoire et je pense que ne ñoo. loolu moo tax ñu ñëw fii boo xolee bu baax ni loolu moo ñu moo ñu soxal depuis pour wane nekk Sénégal ñëwul fii pour foo wala pour caaxaan. match bu métti lay doon ah plus que ne seen dëkk la je pense que ñoom tamit ñu fii tamit pour foo waaw parce que ñoom tamit euh, dañuy dañ éliminer que ils vont nous faire des cadeaux donc euh, li ñu gën a soxal mooy tey dañ gën a góorgóorlu concentré suñu entraînement et def suñu liggéey comme li ñu war pour euh, remporter victoire yi ndam li mu wax ni euh, tam euh, Barcelone euh, wàññi nañu démb seen entraîneur bu bees bi dafa doon football foofa daanaka lépp lu ñuy war a mën a gagné si ak équipe moom ba mu nekkee joueur gañee woon nag muy Xavi moom nag doon na football ndoo foofa ak kii ni ñoom Messi nee na nag ba mu ñëwee ca Camp Nou ba signé kayit ga ba noppi nee na équipe bu Barcelone bi faw ñu delloo ko fa mu nekkoon ndax Barcelone du équipe buy match nil waxatuma muy am ay jël kon faw nu liggéey génnee xale yu bees mu nekkoon ndax loola mooy seen woy te waroonu koo wàcc pétanque itam Sénégal lijjanti na ca euh, championnat d'Afrique mu nekkoon ca euh, réew Burkina Faso ab médaille de bronze waaye itam qualification jëm si euh, coupe du monde bi war a foofu ci atum 2022 ca réew Bénin ba nu ca génnee président fédération bi ñu dénk lu buul yi di Ousmane Ba am na lu mu waxtaane ak Youssouf Bodian Sénégal nag premier tour bi daje nag Mali gagné ko ci fukki poñ ak benn la ko Sénégal gagné Mali après Sénégal itam gagné waat Malgache yi fukki poñ ak ñett si benn donc de ce fait ñu daal di qualifié pour championnat du monde bi nga xam ne Blin beneen la war a am mille vingt parce que huit premiers yi maanaam pour nga compétir si championnat du monde il faut nga bokk sur les huit premiers coupe d' Afrique bi donc alhamdulilah Sénégal moom qualifié na déjà mal avec ses deux victoires au premier tour parce que nous étions le premier à être au championnat d' au championnat du monde beneen beneen jongante bi kon ne jongante bi ba si dimanche bi Sénégal daal di dajeeg Maroc di dajeeg Maroc nag Maroc gagné nu waaw vraiment mënoon nañ ci génn mais gagné noonu si treize à six. loolu Maroc doo bi nu Maroc doogee aussi Maroc moo continuer gagné final bi bi mu dajee ak Burkinabé xam ne ñoo organisé gagné boobu xaw a doy waar aussi maintenant de précision yi maanaam jeu bi ne ànd muy Fara moom it euh, ñafe na fa ba am fa de bronze moom la jël muy troisième place bi di remercier aussi le ministère des sports bi nga xam ne jàppale noonu ba nu ñëw fii tubarkalla mhm. de bu ñu xëyee kenn mënut a ci réew mi <laughs> euh, mburu rek ah moom la ñu tàmm di alaaji. Ah, ah, ah, waaw nga teg lu fondé biik. waaw waaw ko wax nga dëgg jërëjëf Malal. xibaar yi ci RFM. ñu ànd ak soxna Anna Rocha ci chronique culture bi. maa leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbalee ko te jii lu soxal théâtre ak pièce de théâtre bi ñu dippee héritage sans. testament Cheikh Seck moom moo ko daal di euh, bind artiste bi nag di ci euh, dellu ci jafe-jafe ndono ci euh, njaboot yi fii ci Sénégal représentation pièce théâtrale boobu ñu ko doon amal niki samedi ji weesu ca maison de la culture Douta Seck tewe na ko Aminata Le monde touche à sa fin. L'air est pourri, les océans contaminés, les animaux disparaissent. héritage son testament daal di génne jafe-jafe yi ñu daal di nemmeeku ci wàllu po ndono ci yenn kër yi. suñu société dafa mel ni léegi-léegi dañuy fàtte ni ñun jullit yi que yàlla wax na ni bu nit génnee àdduna nañu leeral ginnaawam ci miraas mais ñun boo seetloo am na ay nit ñu juge fii am xaalis lool bàyyi fi ay bien ba tey def nañu trente ans ci suuf kenn miraasu leen c'est une erreur monumentale am na ay famille yoo xamante ni dañoo tasaaroo xotteeku ndax héritage. yu daal di soxal askan wi fusal nañ ko ci. la mort parce que dee dafa ànd ak ñun. dee dañ koo ragal et pourtant ragal gi ñu ragal dee. teewul ñoo ngi def lu neex. maa ngi koy wax ci français. la mort fait partie de la vie. c'est politique avec les hommes d'État. les hommes d'État se trompent s'ils croient encore à leur recette. peuple bi day bëgg jël indépendance am parce que les hommes d'État faaliwul leen. ci soir di duñu xamal ni ci li xew jamono ji ci la dal di sukkandiku ngir daal di am na fi. ni kilifa ga ba mu demee ba tey kenn leeralul ginnaawam te ñàkk a leeral ko ba tey ji famille boobu nekk na mille morceaux. ginnaaw Thiès mu nekkoon ci maison culturelle bu Duda Seck ngir ñu daal di présenter bi le théâtre héritage son testament fas yéene nag wii ci yeneen i gox ba tax na sax Cheikh Seck ak ñi mu àndal dinañ dem ci yeneen gox.